am na erreur boo xamante ni ñu bari dañ koy def mais duñ ci bàyyi xel mooy ci suñuy suñuy azkar wala ba bu ñuy tudd yàlla waa ñenn ñi dañuy yàqamti wala ñenn ñi sax xamuñu ko wala ñenn ñi noonu lañ koy yàgg déggee waaye comme sa relation la ak borom bi subhanahu wa taala fexeel nga waxee ko nu mu gën a rafetee comme na ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam nga waxee ko tamit fekk da ngay am connexion mooy wax ji na nga ko wax mais na am sens na nga ko jox sens bi maanaam boo koy wax na ci bàyyi xel dangay ngay gis ñoo xam ne bu ñuy def seen askar dañuy da ngay gis na astafla astafla astafla astafla astafla astafla gis nga di dem wala allahu akbar wala laa la en fait yàqamti déedéet jéem li ngay wax jéemal ak am sens mooy jox ko sens boo ne allahu akbar yàlla moo gën a màgg kon xamal ni liggéey du dara ci kanamu loolu xamal ni alal du dara ci kanam loolu ba tax na donc waxtu julli bu jotee mooy jóg julli rek moom moo la war mais boo naan boo toogee ba waxtu bi romb nga jóg di julli ne allahu allahu akbar amul sens sax ndax yaa ngi nax sa bopp nee nga yàlla moo gën a màgg te yow bala yàlla woowee waxtu julli ba mu jotee yow yaa ngi nekk ci leneen ba waxtu bi romb complètement nga jóg di julli après waxtu bi romb na après yaa ngi jóg di julli naan allahu akbar wala nga tëdd ba fajar romb nga yeew ay huit heures ndax yaa ngi war a liggéey wala boog ay sept fekk fajar romb na waxtu julli romb na complètement nga jóg di julli ndax danga nga war a dem liggéey yow est ce que yàlla moo tax nga jóg wala liggéey bee tax te tam boo jógee naan allahu akbar di julli allahu akbar allahu akbar est ce que yàlla moo gën a màgg est ce que su doon yàlla moo gën a màgg yow nelaw danga koy bàyyi ndax jóg julli waaye da ngay jóg julli c'est pa parce que da nga war a liggéey mais da nga war a jóg julli allahu akbar yàlla moo gën a màgg se c'est le superlatif mooy ismu tafdil yàlla lépp lu màgg lépp loo xam ne bëgg nga ko daal jox ko gëdd jox ko àq jox ko importance mu nekk lu am sa solo ci yow allahu akbar yàlla moo nekk au-dessus de ça lool lay allahu akbar di fi di firi mooy alal liggéey programme boo mën a nekk daal jàppal ni yàlla moo gën a nekk ci kaw moo tax donc pour nga jog julli fajar tey ñu bari dañuy toog ba waxtu bi romb ñu jóg julli subhaanallah ba pare naan allahu akbar yow li ngay wax déedéet amul sens sax dëgguwul ci yow nga gis koo xam ne day nekk ci ay mbirum àddunaam kërti kërti ba pare ba waxtu julli romb mu jóg di julli naan allahu akbar déedéet amul sens mooy yàlla fam la woowe foofu noonu ngay jóg nga bëgg ay mbir ay mbir nekk lu am solo ci yow nga ne leen foofu ñuq bàyyi leen fa ne allahu akbar yàlla moo gën a màgg nga dem julli ci te tam booy julli nga fexe julli ànd ak teey waaye julli comme nu ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na yàlla yërëm ñu jéggal ñu boole ñun ñëpp ci waa aljanna firdaws allahuma amin ya rab